5M TV Sénégal. chaîne bi leen di jox xibaar yi leen ci anam yu wér ci wóor. mbokku internet yu 5M Sénégal dal leen jàmm ci xibaar yi leen tax seen nekk membre bu waa bureau politique national bu PASTEF coordonnateur communal bu PASTEF Diourbel daal dina àddu. jëm nag ci gis-gis bi nga xam ne am na ko jamono ji ci réew mi mun nag ab borom xam-xam rek di Amadou Kourma waxoon na ko moom bindkat boobee mu mel ni kon jant bi rek bu dee sow kenn mënu koo euh, fere rek euh, daal di nëbbatu loole nañ ci bàyyi xel bu baax a baax askanu Sénégal ñoom dañoo yeewu rawatina askan wi jëm nag ci doxalin bi ni ñuy doxalee ci wàllu yoon mu ni nag lu jëm ci wàllu dëkk bi eh, fi mu toll nii mbiru viol rek moo ko daal di yóbbee ndax loole lañuy gis ni moo jur coow ba tax na sénégalais yi dañoo mer rek ba futt ci diiru ñaari at yi ñu su rekk ñoom gis nañu rek ay eh, ay coow rek la ñuy daal di def eh, jëm ci mbir moomee ñu ni nag seen xool dafa daal di jeex ndax jàpp nañ ni ñoom dañ leen ji manipuler respecté wuñ leen benn yoon moo waral fi mu nekk ni ñu jàpp ni kon yoon daal moo deful liggéeyam te moom sax da leen a nax maanaam da leen njuuy ndax la ñu xalaatoon ni moom yoon noonu lay doxalee doxalee wuñ ko la gis itam doyu leen benn yoon moo waral nag ñoom ñu jug nag génn ci réew ci mbedd mille wane seen bopp mer ba futtu ndax jàpp nañ ni kon ñoom la ñu bëggoon sax dañ koo te rawatina li nga xam ni moom la suñu jàmbaar yi doon doxalee te nag ci yoon bi la boobee la ñu bëggoon rek daal di taxawee jëm ci Afrique gi yëpp nag ndax kile di Patrice Luma Lumumba ak Cheikh Anta Diop ba ci Thomas Sankara ñoom dañ doon xeex rek ngir Afrique rawatina lu jëm ci suñu wàllu démocratie yi lee ñu jàpp ni itam kon fi mu nekk nii ñun ñëpp war nañu rek defandoo doon benn ba xeex lépp loo xam ne rek neexuñu wala bëgguñu ko ñu daal di koy doxal kon askan wi itam mooy daal di doxal ginnaaw autorité yi nga xam ni ñoom ña daal di nekk jàpp nañu itam lu jëm ci bile nag kandidaa bu Ousmane Sonko moom dafa war a am rek ngir nag ñu daal di soppi doxalu réew mi lee